bi mi ñu koy defee ay bës bu nekk ci plateau bi seen mbokk El Hadji Malick Tall bi mooy suñu treizième numéro tey jëm ci euh, jotaayu immigré ñu fas yéene nag waxtaanee ci lu bëree bëri euh, niñ ko lay defee at bu ay bës bu nekk danañu def li ñuy tuddee round up de l' actualité fas yéene nag waxtaanee lu yaatu tey ci suñu réew Sénégal xam ngeen ne Sénégal situation politique bi am na fa yëngu gannaaw bi nga xamee ne président bi toxal na date bi nga xam ne ci la élection présidentielle yi waroon am loolu nag indi na yëngulu yëngu yu mag a mag ci biir réew mi ak ci biti danañ ci dellusi si loolu jéem ko jàngadi ci wàllu droit rawatina ci wàllu droit constitutionnel ak euh, li wundu ci wàllu yëngu-yëngu politique ak social ba ma économie sax ak euh, réaction yi nga xam ne am na ci biti réew mi euh, danañu dellu siwaat ci Amérique Amérique euh, danañ waxtaane it situation politique ci réew mi ci président bi nga xam ne moo fi nekk moom it ci ay mbir yoo xam ne dal na ci ko am euh, ci rapport boo xam ne ni procureur spécial bu ñu nommé woon mu war a saytu ni mu yoree secret réew mi gannaaw bi mu jógee ci vice présidence bi xam nga ne nekkoon na vice présidence ci juróom-ñetti at ci ay kayit yoo xam ne nii ay secret défense la yu mu yóbbu woon këram ba ab l'enquête am ci ci li mu jur ak ci wàllu yëngu-yëngu yoo xam ne ni jëm ci ñu am ci ñu jàpp ne ci mbirum xel magee ne mag koo xam ne ni léeg-léeg naax dikal ko loolu am na ci ay développement yu ci am yoo xam ne danañ ci euh, xuus bu baax a baax jéem a jàngati li mu mën a jur ci wàllu élection yi nga xam ne ci lañ jëm ci novembre deux mille vingt quatre bi nii ci wàllu immigration ci Amérique. danañ ci dellu si waat xam ngeen ne am na législation bu ñu doon waxtaanee benn proposition de loi bu jógee woon waroon jaar ci Sénat bi jëm ci chambre de représentants ci house bi euh, proposition de loi boobu it mujjul jàllu nërmeerlu na complètement danañu waxtaan lu waral nërmeerlu bi lu war ak lan la mën a jur ci situation politique ci biir réew mi leneen li nga xam ne ni danañ ci dellu si loolu it euh, li ay di jàmbat mooy situation bi nga xam ne moo nekk Gaza. Euh, Israël mu ngay continuer ñaawteef ya nga xam ne mu ngi koy def ci kaw palestiniens yi foofu ci Gaza am na waxtaan wa amoon ay bés bi diggante kuréel gii di Hamas ak ña nga xam ne ñooy dox négociation yi ngir jàmm dellu si lu mel ni Égypte ak Qatar waaye dafa mel ni loolu jurul dara am na nag musiba bu mag a mag buy dolleeku ci kaw musiba bi am ba pare buy waaj mooy fañ waxoon nit ñi daw leen làqatu fa foofu mel na ni fu ne nii fala saay-saay bii di Benjamin Netanyahu fala nara sànni ay larmem bombardement ya commencé na foofu ci Rafa Rafa nag dëkk la bi nga xam ne nii moo dox frontière diggante Israël ak Égypte ci réewu Sénégal kon fa la ñuy tàmbalee Sénégal ci ay bés bi weesu président de la République bi Macky Sall dafa def déclaration à la nation maanaam waxtaan ak waa réewam ña ca biir ak ña biti ne leen mu ngi toxal wala fas yéene na laaj assemblée nationale ba ñu toxal lii nga xam ne nii mooy datu élection yi nee na fas yéene naa jël décret bu mu xaatim abrogé décret ba nga xam ne ni mo convoqué woon corps électoral ba loolu nag bi mu ko yëkkatee indi na coow lu mag a mag a mag ci biir réew ma ak ci ndax euh, décret ba abrogé loolu ca ëllëg sa ci la ah, gannaaw ëllëg sa ci la assemblée nationale ba daje ñoom it daa di voté loi boo xam ne ni toxal datu élection bi indi date bu bees kon ñu jàpp ko ci quinze décembre ci deux mille vingt quatre bi ci la élection yi war a war a am ci élection yoo xam ne ci réewu euh, ci wàll euh, ci weeru mois de février bii ñu nekk ci weeru février bi ci la élection yi waroon am daanaka campagne électorale bi mu ngi waroon ubbi le deux. loolu président bi bi mu jëlee ndogal boobu fi mu ko wéer nee na mooy am na lu tollook ñeen fukki candidat ak ñeent wala juróom fukk yoo xam ne ñaawlu nañu lii nga xam ne mooy processus électoral bi ni mu tëddee jàpp nañ ne yëf ay luubal ak yi lu xóor daf ci am ndax ñenn ci ñoom ñu bari dañu dàq seen candidature ndax dossier ba matul wala wéeru wala lii nga xam ne nii mooy li ñuy tuddee parrainage mooy signature ya nga xam ne laajoon nañu am ko ay sponsor ci électeurs yi nee nañu yooyu matul ñooñu it candidats yi yooyu nga xam ne ñoo amoon jafe-jafe yooyu am na ci lim bu yaatu ci ñoom bu tolloog ñeent fukk lu teg yoo xam ne euh, bindoon nañu président bi sàkku dajeeg moom am na sax ndaje mu amoon ca palais ba am na nag ay kuréel yu bokk ci opposition bi wala ay candidat yu waxoon ne jaadu na ci situation bi nii mu demee ñu toxal élection yi président bi beneen point bi nga xam ne nii yëkkati na ko mooy ngir mu toxal élection yi nee na euh, ñii nga xam ne ñoo nekk ci attekat yi mag yi nga xam ne ñoo nekk ci këru attekaay bu mag bi ñuy wax conseil constitutionnel am na ay tuuma yu jógee ci parti démocratique sénégalais ne am na ñaari ci juge ya fa ne yoo xam ne ni corruption dafa dal seen kaw loolu nag parti démocratique sénégalais bi ko wax it ñoom ñoo dugal proposition de loi ba nga xam ne moo indi date bu bees ci élection bi eh, ndax ñoom waa PDS la ñu ñaxtu mooy seen candidat à l'élection présidentielle di Karim Wade di doom ci l'ancien président Abdoulaye Wade dañu ko génnee ci élection yi te teguñu ko ci yoon ndax dañu ne dafa am double nationalité ndegam sax bàyyi woon na nationalité bi waaye nee nañ jamono bi mu koy bàyyi boobu dossier bi dugg na loolu mooy justificatif bi nga xam ne ni fi nga xam ne foofu la conseil constitutionnel ba wéeru ba dàq candidature boobu noonu comme ñoom parti démocratique sénégalais ñoom bokk nañ ci ña nga xam ne ni ñoom ñoo yëkkati mbirum dàq élection yooyu noonu bokk nañ ci ña nga xam ne ñoo ànd ak parti bi ci nguur bi wala coalition bi nekk ci nguur gi fexe ba voté loolu nga xam ne nii mooy loi bi nga xam ne moo toxal élection yi yóbbu ko ci date bu bees donc yëf yi euh, président bi euh, lii la lii ci yii la lii la moom la it tax teg ci loxo citoyens yi peuple ba ne lii moo waral ñu jàpp ne lu ñu war a mën a def la ngir dàq élection yi dàq ko it ne non seulement dañ dàq nañ ko wala danañ ko dàq waaye nag danañu engagé dialogue national boo xam ne waxtaan woo xam ne la wu yaatu lay nekk fexe ba bépp kuréel boo xam ne mu ngi ci biir réew mi te bokk ci parti politique wala bokk ci société civile wala ci association yi wala ci syndicat yi ñu dajaloo waxtaan xool naka lañuy ñuy tëggaatee processus électoral bu bees boo xam ne ubbi ko waaye fexe sax ba ubbi yeneen xeetu mbir yoo xam ne ni du élection yi rek yaa xam ñu ñu jàpp la ñu ne ci kasu bi ñu fexe ba nu ñuy élargir entamer processus li ñuy tuddee réconciliation lii mooy ku euh, mbir yi nga xam ne ni moom la président bi junju ngir teg ko ci loxo sénégalais yi mais yëf yi nag ni mu ko foogee woon amaana demeewul noonu ndax indi na yëngu yu mag a mag mag ci biir réew mi ak ci biti ndax bi mu amee opposition bi ñoom ñëpp jóg nañu taxaw ne duñu ci duñu ko nangu ne duñ ci dal euh, syndicat ya jóg nañ ne du fi amee société civile bi kuréel yu yaatu ci ñoom jóg nañ ne du fi amee ba ci sax kuréel ya nga xam ne ñoo lëkkale investisseurs yi ca biir réew ma la ñuy tuddee les les les euh, confédération bi ëmb les employeurs li ñuy wax kenes mooy kuréel boo xam ne moo dajale ñenn ñi nga xam ne ñoo bokk ci patronat bi mooy yenn investisseur privé yi donc yëngu bu yaatu yaatu ci biir réew mi euh, boobu ba léegi nag euh, ñu bëree ngay wàcc ci mbedd mi di ko ñaawlu di ñaxtu takk der yi di dal seen kaw am na manifestation yu am ci biir ay bés bii amaat am na yeneen yoo xam ne nii ci ay bés bii di ñëw lañ ko taxawal te ña ko woote bokk na ci ñi nga xam ne ñoo bokku ci société civile bi ci bitim réew it yëf yi indi na fa euh, euh, yëngu yu magoo mag a mag a mag ndax euh, ci li ñuy tuddee communauté internationale boo jëlee ci réew tu tugal yi lu mel ni Union européenne bi génne nañ ci ab communiqué jàpp ne lii nga xam ne président bi def na ko dana indi jaxasoo bu mag a mag ci biir réew mi kon ñu ngi koy sonj mu dellu gannaaw ci yëf yi ñu jàpp dat bu gaaw a gaaw a gaaw doxal li nga xam ne nii mooy élection présidentielle yi naka noonu CEDEAO mooy réew yi nga xam ne nii ci biir Afrique ñoo ëmb réew sow jant yi eh, wala ECOWAS bu dee ci anglais nga ko wax communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ñoom it am na réunion d'urgence bu ñu amal bokkoon na ci jéem a saytu ñetti réew yi nga xam ne nii réew yooyu ay militaire ñoo def coup d'état nangu nguur ga réew mu mel ni réewu Mali Burkina ak Niger te nga xam ne ñoom bind nañu leetar ci waa kilifa CEDEAO ne génn nañu CEDEAO ñoom créé na lu ñuy tuddee l'AES l'association des états du Sahel euh, réunion d'urgence bi CEDEAO woote lañ ca waroon waxtaane la ca ëpp jëm na ci situation ci ñetti réew yi ma ma wax waaye nag mbirum Sénégal ñëw na rax ci euh, kuréel yii di CEDEAO ñoom it communiqué bi ñu génnee woon mooy nañu fexe delloo si date ba nga xam ne nii mooy datu élection yi ñu taxaw ci na mu gën a gaawee ndax loolu mooy jur jàmm bu dul loolu mën naa yëngal réewum Sénégal réewu Amérique it yëkkati nañ ci seen kàddu kii nga xam ne nii moo yor kàddu département d'État département d'État mooy méngoog seen ministère des affaires étrangères yëkkati nañ communiqué ne lii du jor lu dul jiixi jaaxa ak lëndëm lëndëm ak incertitude ak jaxasoo ci biir réew ma ak la wër réew ma dans toute la région ñuy sonju président bi mu dellu gannaaw ci loolu jéem a taxawal datu élection yu gaaw a gaaw te ubbi élection yi képp ku ci war a bokk bokk ci euh, kii nag nga xam ne sax mooy le président de la commission des affaires étrangères ci Sénat wu Amérique kii nga xam ne mooy sénateur Ben Cardin démocrate la bokk ci état wu Maryland moo jiite lii ñuy wax foreign affairs committee foreign affairs committee nag bokk na ci commission yi ëpp doole ci biir Sénat bi moom it am na communiquer bi mu génnee lu ñuy tuddee statement ne ah Sénégal <coughs> mu ne Sénégal mel na ni nag mu ngi bëgg a tegew ci yoonu ci yoonu dictature nee na réew muñ xamoon ci réewum démocratie réew respect des droits de l'homme nee na yii am dafa mel ni nii mu ngi ko indi ay yeneen mbir yoo xam ne nii bokkutoon ci histoire du Sénégal donc lii moo nekk Sénégal euh, bu ñu ko xoolee nag ci wàllu droit déjà posé na problème yu bëree bëri ñu ci bëri ci ñoom jàpp nañ ne ci yenn juriste yi que décret bi ñëw dàq yëf yi euh, élection yi dana violer constitution bi dana violer code électoral bi ndax jàpp nañ ne lii nga xam ne mooy wàllu mandat te constitution bi indi woon limitation des mandats ne kat kenn mënul def lu ëpp ñaari manda te manda bu ne it juróomi at la loolu ñuy tuddee ci droit constitutionnel l'intangibilité du nombre de manda et de la durée des manda mooy ñaata manda nga mën a def mooy ñaar dong ngay def mënu ko ëpp mënoo defit lu ëpp juróomi at ci ñaar yooyu bu ne nan la ni décret bii ñu di signé ak loi biñ dugal ñëw na ngir safaanoog loolu donc am na ci juriste yu bëri yu avancé argument boobu na leneen li am na sax ñu junj ne ñëw na ngir violer la nga xam ne ni moo moo nekk ci code électoral bi ci article yu bëree bëri looloo waral am na ci lim bu takku ci député yi bokk ci opposition bi yoo xam ne ni songu nañu lii nga xam ne mooy loi bi ñu voté ak décret ba foofu ca conseil constitutionnel loolu it lu ñuy bàyyi xel la ngir xool ko donc yëngu-yëngu yu mag yoo xam ne ni xamuñu fi fi jëm waaye toujours est-il que mel na ni décision bii président bi jël ànd ceeg partem ànd ceeg parti démocratique sénégalais mel na ni la ëpp ca citoyen réew mi ànduñu ci te rafetluwuñ ko mel na ni ci bitum réew it eh, indi na bañu ne du baaraam réewum Sénégal ci réew muñ xamoon ci wàllu démocratie ak wàllu droit de l'homme donc loolu lu ñuy suivre de très près la xool eh, naka lay évoluer yëngu-yëngu nag mu ngay wéy ay manifestation li lay am ñu wàcc ci terrain bi pour ñaxtu takk der yi taxaw ak ñoom Euh, sànni ay grenade lacrymogène ak yàqu-yàqu yi nga xam ne mën na koo jur loolu lu ñuy suivre de très près la ndax euh, wax naa ko léegi kuréel gu yaatoo yaatu ci société civile bi woote nañu ab manifestation ci ay bés bii di ñëw xamaguñu ndax demande nañ autorisation ndax danañ ko autoriser am déet bu dee ne autoriser wuñ ko mën naa juri yeneen jafe-jafe mais la jaadu mooy nguur gi autoriser marche yooyu la jaadu it mooy jël disposition ya ca war fexe ba ñu encadré ko nu mu waree te bakkan bañ cee rot kenn bañ cee yàqule réew mi ci boppam bañ ce yàqu mais toujours est-il que Sénégal am na pression bu mag a mag a mag bu tege ci kawam ca biir ak ci biti surtout ci président bi nga xam ne nii moo yor réew mi ndax lamu mu waxoon mooy ñaari mandat yi jeex na du nekk kandida ñu bëri jàpp nañ ne lii mu def day woroo ak i kàddoom ak dige boo xam ne dige woon na ko ba ñëpp jàppoon ne la jaadu rek mooy organiser élection yi ñu dem ci euh, ku gagné ñu jox la réew mi mel na ni kon jafe-jafe am na ci côté boobu noonu. ci biir réewu Amérique aussi ci ay bés bii nii bu ngeen ko seetloo euh, am na ay mbir yoo xam ne nii dal na ci bii ci kii di président Biden président Biden mën nañu conté benn ba ñaari yoon wala ba ñetti yoon yoo xam ne jaawale na léeg ay événement na mu tëddee. ndax euh, ci ay bés bi ci waxtaan wu mu doon amal ca Las Vegas euh, wala ca Michigan euh, mel na ni jaawale na kii di Emmanuel Macron di président bu France ak François Mitterrand ne bi ma faloo dama ne woon America is back Amérique dellu si na sur la scène international nee na mu toog ak François Mitterrand François Mitterrand génn na depuis les années quatre-vingt-dix président bu bees bi fi nekk bi président Biden faloog léegi Emmanuel Macron la tudd loolu benn la ci xeetu erreur beneen erreur bi mu def mooy jaawale kii nga xam ne nii mooy chancelier Allemagne Angela Merkel ci jamonoom ak ki nga xam ne mooy Helmut Kohl Helmut Kohl dee na depuis 2016 euh, bi nga xamee ne nag yëf yooyu am na coow lu mag la jur ndax ciow li mu jur mooy ñu ci bëri nee nañu président yi fi jaar yëpp ci ñeent fukk ak juróom bay den mooy daanaka euh, ñeent fukk ak juróom benn sax lay wax quarante sixième mooy président bi ci gën a mage ci nombre d'âge boobu mu ngi toll ci juróom-ñetti fukki at ak benn quatre vingt et un ans ñu ci bëri jàpp ne euh, mel na ni ni muy fàttalikoo ay événement am na ay lëndëm lëndëm yu ci am xam nga wax naa ci programme bi ne am na ci moment boo xam ne nii ci début d'année deux mille vingt trois bi ci biir parti démocrate bi nga xam ne fa la bokk ay kàddu jiboon na ci ñenn ne nañu nañu jéem a wut beneen candidat bu taxaw am sax ñu ne woon nañu tànn Gavin Newsom Gavin Newsom mooy gouverneur bu California ndaw la ci at mais aussi ku dynamique la te ci juróom fukki état yi fi nekk California mooy état bi ëpp doole ci wàllu koom-koom ak ci wàllu Euh, taxawaay ci population ak ci superficie bi nga xamee ne wax jooju jib na am na ñu ne woon nañ ko def am nañu buñ buñ ko def waaye ñuy raam ba délai ya nga xam ne ci nga mën a féel candidat bu bees délai yooyu passé donc ci ay bët bi loo ci bés bi loolu jibaat na encore am ñu ne lii nga xam ne nii ay kàddu la yu jib te am njuumte ci kàddu yi ndax njuumte kese wala li ko indi mooy président Biden moom Joe Biden toll na ci at yoo xam ne nii am na lëndëm lëndëm ak naax goo xam ne commencé na ci moom. ci barke démb ci biir ay bés bi bi nga xamee ne woote na conférence de presse gannaaw ba nga xamee ne procureur spécial bi doon saytu bi mu nekkee vice président ba jeexal jógee ci nguur gi dafa yóbbuwaale woon ay kayit yoo xam ne secret défense la kayit yooyu. procureur bi doon saytu ndax tege na ci yoon wala tegewul ci yoon ak lum ci def ci enquête bi mu def jàpp na ne euh, ndegam tegewul ci yoon sax waaye président bi am na jafe-jafe ci fàttaliku ay mbir yoo xam am na ba ci doomam bu góor bi faatu woon ci at yële fàtte na euh, am na difficulté pour recollecte la nga xam ne nii mooy événement yi nga xam ne weesu na loolu bi rapport boobu génnee rek président bi woote conférence de presse ci Maison Blanche ñaawlu na nga xamee ne noonu la procureur bi bindee rapport boobu ak lim ci junju waaye foofu it mu juumaat ci événement jaawale Gaza ak Mexico jaawale président Sisi ki nga xam ne nii mooy président bu Égypte ak président bu Mexico ki nga xam ne ni mooy président Obrador loolu euh, euh, ci kanamu taskati xibaar yi loolu indi it beneen jafe-jafe relancer débat bi ma wax léegi ndax magewul ndax xelam yeggul fu muy commencé naax ak réew mu toll ni Amérique ci doole ci taxawaay nga xam ne lu fi am am conséquence ci biti ci àddina bi lu am kon lu xew ci àddina bi dellu si waat fii nii ndax réew mee tëddee noonu Amérique nekk superpuissance militaire diplomatique ak politique ak économique boo xam ne ni loolu débat bu ñu relancer la donc loolu it lu mat a suivre la ndax ñu ngi jëm ci élection présidentielle niru na ne Donald Trump moo nar a nekk candidat moom it sëreewul aju Biden mu ngi toll ci juróom-ñett ñaar fukki at ak juróom-ñaar 77 ans moom it léeg mu jaawale événement jaawale na ki nga xam ne mooy Nancy Pelosi nekkoon former speaker ancien patron bu house bi ak ki nga xam ne mooy beneen opposantam nekk ci parti républicain bi te di xëccoo euh, candidat à la candidature bi mooy primaire yi Nikki Haley kon nga gis ne fi réew mi toll ci puissance ak ci taxawaay ak ci ñay voté ñaari candidat yëpp ku ci fallu ci ñoom ci âge bu avancé avancé lay falu président Biden bu faluwaatee buy jeexal li deuxième mandat bi dana fekk mu nekk ci juróom-ñetti ak juróom-benn quatre-vingt-six bu faloo buy jeexali mandat bi dana fekk mu nekk ci quatre vingt ans kon nga gis ne ñoom ñaar sorewuñ ci âge et loolu luy dellusi la ci. ni nga xamee ne noonu la ñi nga xam ne ñooy voté gisee ci sondage yi laaj yu bëri yu leen fi laaj beneen événement boo xam ne am na ci ay bés bi ci biir réew mi mooy wàllu immigration xam ngeen ne waxoon naa fii ne ay bés bële am na waxtaan boo xam ne ñu ngi ko doon jund ci Sénat bi am ñetti sénateur yoo xam ne ñoo doon waxtaanee législation boobu noonu James Langford sénateur la bu Oklahoma Chris Murphy beneen sénateur démocrate la moom bu nekk ci état wu Connecticut ak kii nga xam ne mooy Christine Sinema sénateur indépendant la moom nekk ci état wu Arizona bañ ci waxtaanee ba juboo ci législation bi ñu bind ko war ko indi ci Sénat bi ngir voté ko waaye ne woon naa leen jàpp ma ne législation boobu dana jàll ndax la ca lalu woon bokk na ci euh, législation ba la ko lal mooy cent neuf milliards de dollars yoo xam ne ni président Biden a ngi koy laaj cent neuf milliards yooyu quatorze milliards jëm ci israel ci ay ndimbalam ci wàllu économie ak i ngànnaay muy continuer di boom palestiniens yi am xaalis bu takk bu jëm ci Ukraine ak leneen loo xam ne jëm ci réew mi nga xam ne mooy Taïwan moom it ngir mu gën a mën a jàmmarloo ak Chine li ci des ñu dugal ko ci li ñuy tuddee border security mooy sécurité à la frontière diggante Mexique ak réewum Amérique rawatina fexe ba fatt lépp lu ñu mën a fatt ba immigré yi daw di jóge ci réew moom dootuñ fi dugg loolu benn la ñaareel bi fexe ba yokk lépp loo xam ne ay mesures la waaye surtout fexe ba bu ñu yeggee ci benn nombre fatt booda bi kenn dootu fi dugg mooy def lu ñuy tuddee chatte booda ñi dugg it ñu accélérer seeni kees bu fekkee ne seen kayit antu na naam muy noonu bu antuwul ñu def lu ñuy tuddee expatriate removal génnee leen ci nu mu gën a gaawee loolu législation boobu noonu mujjul antu mujul jàll président bi euh, jàllul nee na dana jël ay mesures yoo xam ne ay mesures réglementaires lu mel ni ab décret dana jël ay décret fexe nu mu fixe frontière bi ndax jàpp na ne bu deful dara li jafe-jafe yu mag a mag a mag la ko mën a indil ci élection yi nii. Euh, républicains yi voté wuñ ko ndax Donald Trump soxlu na législation bi ne woon na Sénat bi bu leen ko voté. bill bi soxla woon na ci Sénat bi lu toll ak soixante voix sur les cent pour jàll cinquante rek ñoo ko voté donc quarante neuf républicains ya nekk ca Sénat ba kenn voté wu ci législation bi euh, house bi it buñ ko voté woon it bu ñëwee devant la chambre des représentants amaana ñoom seen bopp du ñu ko voté donc lii mooy situation boo xam ne moo nekk à la frontière mu nar a indi nag ay mbir yoo xam ne ni ay mbir yu jafe la nar indi ndax républicains yi li ñu wax mooy président bi bi mu ñëwee dafa fi fekk programme ak politique boo xam ne moo fi nekkoon ci wàllu immigration jamono jooju Donald Trump moo fi nekk soppiku yi nga xam ne indi na ko ci frontière bi nee nañu soppiku yooyu noonu moo indi li nga gis ndax bi muy ñëw nee nañu quatre cent mille personnes ñoo daan daw di jéggi di dugg par année moom Joe Biden bi mu ñëwee lii dugg ëpp na deux millions deux cent mille ba trois cent mille immigrés yuy cross par année donc républicains yi ci xa bi li ñu wax mooy delloo sil politique bi nga xam ne ni moom lañ dawaloon moom euh, ci jamono Donald Trump ñu door a waxtaanee beneen mesure boo xam ne nii wala yeneen i mesures yoo xam ne nii comme yi ma junj léegi. Euh, finalement législation boobu noonu jàllul donc président bi nee na dafa bugg a def executive order mooy signer ab décret loolu aussi lu ñuy suivre de très près la parce que lépp luy laal ci décret léeg-léeg boo defee décret. Euh, songu ko ci juridiction yi day yomb parce que dañuy jàpp ne la nga mënutoon am ci chambre des représentants wala ci sénat bi wala au niveau législatif la manul jàll loolu léeg constitution bi ak loi réew mi mayu la nga def ko décret ndax dafa am le domaine de la loi ak le domaine du règlement loolu ici lu ñuy surveiller de très près la fi ñuy daanelee ci round up bi nga xam ne moom lañ def ci ay bés bi mooy Israël junju naa léegi ne législation bi ma fi wax léegi bu antu woon quatorze milliards de dollars c'est beaucoup d'argent loolu xaalis bu bëri la dana doon tege ci loxo Israël ñu gën a mën a boom palestiniens yi gën a mën a yàq réew mi ci Israël ci ay bés bi négociation ya nga xam ne am na diggante eh, Hamas ak Israël du négociation directe ña nga xam ne ñooy dox jàmm nekk intermédiaires yi muy Qatar ak Égypte ñu nga woon ca Caire négociation yi sottiwul Hamas li mu wax mooy naa mën naa libéré ñi nga xam ni mu ngi leen téye bu boobaa it Israël libéré ay nitam rawatina ay kilifa yu bokk ci mouvement palestinien bi ku ci mel ni euh, euh, ku ci mel ni kii nga xam ne mooy Barghouti di euh, Marwan Marwan Barghouti ak yeneen i prisonnier loolu benn la ñaareel bi ñu dakkal guerre bi Israël génnee ay soldaaram Israël nanguwul loolu moo waral mu ngay préparer offensive boo xam ne jëm ca dëkk bi ñuy wax Rafa Rafa dëkk la bu nekk frontière ci biir Gaza la diggante frontière u Israël ak Égypte fala la Israël waxoon civil yi nga xam ne bugguñoo dee nañ daw làqu fa commencé naa bombarder foofu noonu lii nag genre chantage boo xam ne ni euh, blackmail teg ko ci loxo Hamas nangu leen li ma wax wala ñu jekkali ñu fi des ndegam sax ki nga xam ne mooy Anthony Blinken di secrétaire d'État jóge na fi dem Israël dem Arabie Saoudite dem Qatar dem Égypte terewul tey la yëf yi gën a doy waar damay faral di wax nag baax na toujours ñuy fàttali ci programme bi ngànnaay yi ngay dégg yëpp rey geeg ñaawteef yii ngay gis yëpp ci ndimbalu Amérique la ñooy joxe xaalis bi ngànnaay yi fii la jóge ñooy joxe li may tuddee de diplomatique kovo mooy bu ab réew naree jóg dal ci Israël ci jaaree ci yi xeet gi wala plainte feneen Amérique jëkk daa di fexe ba loolu naxasaay xam ngeen ne réewum Afrique du Sud porté na fi plainte ci International Court of Justice wala la Cour internationale de justice ba ñu jox leen dëgg waaye réew yu tubaab yi ya ca Europe ak Amérique ànd nañu naxasaay fexe ba jugement boobu seeyal ko fexe ba jël yeneeni xeetu kàcc yoo xam ne nii lu mel ni l'agence des nations unies ba nga xam ne mooy joxe ndimbal ca Gaza ne ña fay liggéey dañoo laal ci attaque bi nga xam ne mooy bi amoon contre Israël le octobre te loolu it tege ci ay kàcc ak propagande boo xam ne ni addina bi ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu dëgg xam nañ ne loolu amul donc lii mooy situation bi nga xam ne ni moom la ñu gis ca Palestine muy lu ñaaw ak lu bon loo xam ne ni mu ngay wéy di am Euh, loolu it lu mat a suivre de très près la ci ay bés bi di ñëw ndax lii nga xam ne mooy offensive bi Benjamin Netanyahu di waajal ngir dalee ko ci kaw Rafa loolu bu amee mbootaayi xeet gine nañu catastrophe bi nga xam ne gis nañ ko di ko dund nañu xam ne dana gën a yokk dana gën a bon loolu euh, réalité la sur le terrain donc lii mooy round-up bi nga xam ne ni gis nañ ko euh, jàpp nañ ko dans la semaine fi ñuy tëjee mooy mbokk yu bëri dañuy laajte banque bi nekk Amérique te bokk ci suñu sponsorship ci programme Al Maktoum TV bi ci jotaay immigré ñu koy wax la banque de l'habitat du Sénégal la BHS xam ngeen ne BHS yàgg na fii ci Amérique donc mu ngi ci état wu New York rawatina New York City moo nga Ohio ci dëkk yi ñuy wax Columbus ak Cincinnati moo nga Georgia foofu ci Atlanta mu nga Baltimore mu ngi euh, Memphis Tennessee mu ngi Philadelphia foofu ci Pennsylvania ak New Jersey BHS yàgg na fi depuis 1992 donc mbokk yu bëri dañuy laajte message yi naka la ñuy def ba ubbi fa compte rawatina mbokk immigré yi ñëw bees ubbi fa compte yomb na bu ngeen wootee ci 212 447 12 00 kooku numéro New York la euh, képp koo xam ne am nga papier lu mel ni passeport wala carte d'identité Sénégal mën nga ubbi compte foofu noonu banque bi avantage bi dama koy waxal toujours mooy avantage bi mu leen di jox mooy compte bi ngeen ubbi. compte boobu Sénégal lay nekk amul benn gouvernement wala benn réew bu ci mën a jot directement parce que xam ngeen ne réew mi ñu nekk muy Amérique ñoom compte bancaire boo ubbi war nga ciy déclarer taxe war nga cee fay ay lempo waaye banque bi moom boo fa ubbee compte compte banque nga ne ca Sénégal en français fa la loo ci rawale it mën naa man mën na nekk sa alal joo xam ne foofu nga ko teg ba saa yoo ko soxla leneen li mooy banque bi projet immobilier yi nga xam ne mu ngi ko taxawal ci mbokk yi nga xam ne ni yaa xam dañoo bëgg a jënd terrain wala ñuy tabax wala dañoo bëgg a jënd luñ tabax ba pare banque bi <clears throat> lii nga xam ne mooy mission am bokk na ci li ñuy tuddee un toit un sénégalais kon képp koo xam ne nii mbirum kër intéressé na la banque bi mën na laa gunge ba mu yomb ci yow ndax am na programme logement sociaux yoo xam ne nii banque bi moo ko financé am li ñuy tuddee ay promoteur agréé kon loolu Euh, képp koo xam ne jokkoo nga ci banque bi euh, danañ la ci indi ay leeral banque bi bokk na ci euh, ñi nga xam ne ni ñooy jàppale programme bi nii ci suñu sponsorship. donc lii mooy li ñu bëggoon tënk ci ay bés bii nii danañu suivre de très près situation ba ca Sénégal xool naka lay mujjee ca cour conseil constitutionnel ba ci décret bi nga xam ne ak loi bi songu nañ ko xool it sur le terrain yëngu-yëm indi ci wàllu politique ak wàllu social. ak euh, lii nga xam ne ni mooy réaction yi nga xam ne am na ci biti danañu surveiller de très près lépp lu jëm ci wàllu immigration ci biir réew mi ak situation bi nga xam ne junju naa ko léegi ca Gaza ci offensive boo xam ne nii réewu Israël mu ngi koy waajal donc lii mooy li ñu indi woon tey ci Al Maktoum TV fii ci Al Maktoum TV New York euh, seen mbokk El daal Malick ni ñu koy defee ay bés bu nekk ñi leen di ñaan nag bouton boobu ngeen di gis ci suuf def euh, subscribe ngeen souscrire ci channel bi te partager vidéo yi parce que loolu mooy euh, dañuy volontaire mbokk yi ne ci machine yi di volontaire ñi montage beeg yooyu yëpp ay volontaire lañu kenn fayeeku ci dara euh, waaye nag lii dëgëral programme bi mooy ñu tasaare ko tas ko ba mu gën a yaatu loolu mooy jox chaine euh, bi doole loolu mooy jox it mbokk yi nga xam ne ñu ngi ciy yëngu moo leen di jox courage kon bu ngeen souscrire ci channel bi foxel fexe leen kon share vidéo yooyu partagé ko bu baax a baax seen mbokk El Hadji Malick ci plateau bi suñu xarit Cheikh Ahmed Tidiane Dieng ci machine bi jox leen daje ba beneen ayib